jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni yéen ngi ànd ak CCB ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd bi nga xamante ni yéen a koy ànd ak ñun di leen wax ngeen gën a abonné bu baax te xam ne seen mbégte lekk mooy suñu yitte ñu ngi gërëm bu baax kilifay diine yi kilifay aada yi sëriñu daara yi ak ñi nga xamante ni ñooy aar daara waaye di ndokkeel bu baax sunu mbokk yi nga xamante ni ay handicapé lañ su lu ñu mën a handicapé rawatina ñi nga xamante ni mënuñoo dox ak ñi nga xamante ni seeni bët dafa sëgg ak nga xamante ni seenu xel dafa sëgg ba mel ne man ñu ngi leen di massaw bu baax a baax di soññ gouvernement bi mu taxawu leen te jàppale leen te xam ne si askan wi la ñu bokk sunu mbokk yi nekk bitim réew it ñu ngi leen di massaw bu baax a baax di wax ne ñi jëflanteeg ñoom nañ ko rafetal di wax ni képp koo xamante ni jël na seenub dërëm lekk ko te léwu la na la leer ni famille réalisé du la neex ndax lañuy daj ba jox la seen xaalis xamoo ko kon nag nañ leen jàppale nañ leen taxawu sunu mbokk ya nekk bitim réew kon mbokk yi te ñaanal leen baykat yi ak sàmmkat yi nappkat yi duñ leen fàtte ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen gërëm mbokk yi nag tey jii ñëw nañ fas yéene ànd ak yéen waxtaan dalal ki nga xamante ni mooy Ibrahima Gueye bokk feese parti bu Pastef war a waxtaan ak moom si Ousmane Sonko waxtaanu yaatoo yaatu yaatu incha allah war a waxtaan ak moom si li nga xamante ni mooy yeewi askan wi ak Bougane Gueye dani génn bi nga xamante ni génn na ko si parti bu mag boobu yi nga xam àndandoo googu nga xamante ni daaj àndandoo woon nañ ko muy parti bu pire. ak bi nga xamante ni mooy taxawu ndakaaru ak Pastef yaakaar naa ne ñett ñee tax ñuy wax ba Bougane Gueye ràññee loolu yi si la génn ak ñeneen ñi nga xamante ni ña ngay waaj pour bëgg génn kon ñu leen di ndokkeel di wax ni Baye Cheikh Fall moo leen di may émission bu mag bii. moom moom yi na ngeen ko xaar si safar gi incha allahu rabbi fii si set site bu mag bii nga xamante ni ñu ngi waajal màggal gi incha allahu rabbi kenn du leen ko yóbbul si kàttanu yàlla incha allahu rabbi kon son yi bu jëpp dañuy dem ànd ji ak ki nga xamante ni mooy bàyyi Cheikh Fall bu ñu ñëwee ànd ak Ibrahima Gueye si waxtaan bi nga xamante ne war nañ ko seq ak moom tey ji incha allah Serigne Cheikh Fall borom si faa un ngeen di àndal kenn dootu ko laajte ci biir réew mi ak ci biti réew Sénégal Afrique ba Europe ñëpp garabu jabetam yi la ñuy waxtaanee Serigne fal borom boo amee jabet demal hôpital nga xool sa jabet fan la toll nga dellusiwaat ñu jëflante cëy bu ñu paree yéen ñi am jabet bu leen tànqamlu moo mën ci jabet yéen ñi yor ndoxum siti na seen xel dal mi ngi ci garab yu doy waar lépp lu jëm ci hémorroïde ñu yor xeetu gémmiñ te feebar yóbbee leen ko dawal ngeen seeti Serigne Cheikh fal yow mi am feebaru biir lekk mbaab liggéey mbaalu bon teg la ko dawal nga seeti Serigne Cheikh Fall ndax foofu am Serigne Cheikh Fall ni ma naa xel ñi nga xam ne ñoo yor seeni soxna te mënatuñu ci ñoom dara maanaam ñi tële wala sax ñi néew kàttan Serigne Cheikh Fall mi ngi ceeg lu doy waar mille force attee boo xam ne loo lekk lu mu bari bari bari tàngalal rek ndox nga def ci dalay digérer lu gaaw a gaaw a gaaw yow mi am ballonnement seere lépp lu jëm ci listixaar ak sangatu ubbeeku bayre ngeen mën a jokkoo moom ci ay numéro téléphone am yooyu di affiché ci barre écran bi Serigne Cheikh Fall moo leen di may seen xalaat waaw kay jërëjëf sony bu Diop jërëjëf Baye Cheikh Fall ñu ngi koy gërëm bu a baax baax mu mel ne que ni kon Ibrahima Gueye mi ngi ci ligne bi Ibrahima maa ngi lay nuyu. maa ngi maa ngi lay fay. yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla baax di leen siyaare. yaa ngi si site bu mag bii di CCB nga xamante ni mën naa ni Afrique gépp a ngi ci ay mbaggam. maa ngi lay nuyu di la sant di la siyaare di siyaare waa CCB am di siyaare sooy bu moomu. sooy bu waaw mi ngi lay delloo siyaar bu baax. tey koy ñaanal jàmm di ko ñaanal Sénégal gépp di rafetlu ab liggéeyam ak ab liggéeyam Baye Assane Mesere. jërëjëf Ibrahima. sant gi ngeen di sant nag liggéeyal Sénégal moom daanaka jurul sant kenn ndax ku nekk sa bopp ngay defal. jërëjëf Ibrahima. waa Sénégal gépp it rafetlu seenub liggéey. jërëjëf. te it wax dëgg yàlla di lekk nit ku nekk la nga mën ci waar di ko bay yéen a ngi koy bay seen waar. ah jërëjëf Sénégal yëpp Sénégal yëpp. bu ngeen ko yëgee ak bu ngeen ko yëgul ñu ngi di sant. jërëjëf jërëjëf Cheikh ndax waar bi ngeen di bay. bu hmm. ngeen ko bay ko bay woon mu booy. Hmm. Euh, ñu ngi leen ci sant baax a baax a baax. waaw kay jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di fàttali askan wi kii nga xamante ni moom lañu àndal tey jii mi ngi bokk foofu si parti bu Pastef ñu fas yéene waxtaan tey jii si Ousmane Sonko ak xew-xew bi nga xamante ni xewoon na ci moom. ak moom mii taxawaay bi mu ci amee woon keroog ba nga xamante ni waa yoon ñëw nañ kër Ousmane Sonko moom mii moo taxawoon ci bunt ba ni Ousmane Sonko day néewuñu duñ ko tëj waaye ay bakkan yu bëree bëree bëri lay laaj ngeen doog koo tëj Ibrahima Gueye waraloon kàddu yooyu. Euh, kàddu yooyu li ko waral mooy di nit dañuy wax euh, junj borom benn borom xel te ñu amoon xel amoon analyse am analyse politique ak xam fi réew mu tolloon ci jamono ni ñu mel ci président Ousmane Sonko ni ñu meloon ci moom moom laa xamoon ne ne leen kii kat bokkut ak ñi fi daan jaar. Mhm. ndax kii ci dayoom ci politique dayoom ci bëgg réew mi dayoom ci. ànd ak ndaw ñi yegg na foo xam ne ku ko laal mën ngaa taal dëkk hmm. te ba ma koy wax dama ko waxoon ci lu leer nañ. Hmm. waxoon ko ak yéen Sénégal jàmm am fi bañ a bañ a bañ a tàkk ma artu ma ci sàll guddi artu ko bëccëg artu ko fu ne na ko na nga xel ci ne réew mi dañ la koo dénk te lépp luy taal réew mi na nga ko moytu. Hmm. bés bi président Ousmane Sonko ne wuy laa xamoon ne Sénégal dina yëngu ndax booba xamoon na ne Sénégal yi danañ taxaw ci ginnaawam ndax fi taxaw askan wi fa la ko askan wi taxaw. Hmm. bu ma doon wax naan bu Macky Sall Ousmane ku ko tëj ay bakkan dana tuuru yu bëri. Hmm. booba xamoon na ko sax moom. Hmm. ndax am nag li ñuy wax naan euh, ku xamul buur dee na xam buur saay na. bu fekkoon ne yemale na ko foofa. wala mu daal di jël li xam ne mooy ci ay responsable ku ci nekk say responsabilité mu jël ay responsabilité bu boobaa ay bakkan mën na fee bañ a tax ndax booba benn bakkan woo dëggul hmm. ma taxaw ci buntu kër Ousmane Sonko ne ko Macky Sall la ma ne ko Ousmane Sonko bi ku ko tëj hmm. ay bakkan dana tuuru hmm. ku ko tëj ci kaso bi sa jabar dana la denc waaw waaw waaw waaw ndax lu ci nekkit dafa am ay signe te signe yëpp daje woon na ci attention bàyyi leen ko bu leen ko laal ndax buur moom li koy fatt li ñeen bët la koy fatt du ko gis waaye bu ay kilifa taawee ku mel ni sëriñ Mountakha taxaw sëriñ Mbaye Sy Mansour taxaw hmm. kilifa diine yëpp taxaw hmm. ko bàyyi ko ah waaw bañ ko waxee bàyyi ko est-ce que bañ ko waxee bàyyi ko kay xanaa la ko bàyyi déedéet hmm. bu ko bàyyi woon laataa bakkan yi tuuru booba ñuy waxoon nañ ñooñu nga wax waxoon nañ dara xew booba dara xewagut sëñ ah. ndax booba fekk na premier jour bi am na ba combat bi am guerre bi amee premier jour. non première vague bi booba sëñ sëñ yi waxutoon sëriñ si ñi ngi wax. deuxième vague ba comme troisième. sëriñ bi bi muy sëriñ bi bi muy wax. booba ba premier jour ba ba mu yëngu ba pare. Hmm. la ko sëñ bi woo fekk dafa tukki woon. Hmm. lu ko sëñ bi woowee wax ko mu ne ko euh, yëg naa ko waaye damay nekk ba mu yegg ci man. moo hmm. loola bopp lépp mu ngi nar lam nar jàpp comme jàpp. man ñi nag ma xam fa daay sëñ Muntaxa toll ci dëkk bi. xam ni kilifa yi diine yi toll ci dëkk bi. ak ne ni ñu mel ci askan bi. ak digal li ñu am si askan nga xam ne ko defee askan wi ñëw. ñu wax ko mu ne déedéet. Mm-hmm. premier jour bi boo xoolee ba asam. Mm-hmm. lu bëri dafa lakk. te mm-hmm. lañ lakkoon te lañ tojoon osaan bi nekk bi nekk fële bi nekk euh, deux Sacré-Cœur devant Sacré-Cœur yi. te lañ lakkoon station bi. te la xeex bi métti woon loolu mooy premier jour bi. wax nga dëgg waaw. booba nag bu amoon ab ab ab ab euh, lecture tuuti. Hmm. dana taxaw ne hmm. lu mu gën a continuer rek lu xeex bi gën a yàgg rek. Hmm. moom muy gën a sonn moom. lu xeex bi doon gën a yàgg muy gën a métti. nag dem ba dernier moment ba ay door a bàyyi. bu fekkoon ne bàyyoon na ci saa si ni mu njëkk su ko mujjoon ay bakkan du tur ay bakkan du wadd. mais mais mais Ibrahima. waaw moom dafa bàyyi wala dafa def in fois reculé pour mieux sauter. loo bàyyi. waxuma la bàyyi waaye dafa wàcc dafa dafa dafa dafa lese dafa dafa dafa nekkul dafa daw rek. ah est-ce que bàyyi la delloo delloo awaam yàgg na. Ah. ba mu bàyyee yàgg na. Ah. léegi nag foofu lay dikk. Hmm. ci tuuti ci bàyyi googu mu bàyyi. waaw ndax bu ko bàyyi ba pare. Hmm. jàkkaarloo Sénégal yëpp daal di def apaisement. Hmm. woote jàmm. daal di ne léegi bàyyi bàyyi leen mu bàyyi leen mu jeex xale yi dégg naa seen naqar. dinaa leen wutal liggéey dinaa wutal nangami junni liggéey dinaa jox nangami milliard dix milliards joxe xal ndaw ñu wut liggéey hmm. boobu ba léegi defu ko hmm. waaye nag ndaw ñu ngi ko digoon ba tey ñu ngi koy bàyyi xel hmm. te itam du des li ci dolli mooy waaye asan réew mi lenn dootu fi am muy lan maa fi nekk kenn du kenn du fi nekk maa yor doole ji ko wax ma dóor la ko wax ma tëj la loolu moom moom bu fekkoon ne tey beneen président ñëw bu doon Macky Sall itam. Hmm. dootu fi am. ndax lu tax loolu fi am. Hmm. esprit bi nekkoon ci suñ njëkk nga xam ne nii askan dañ daan dañ dañ leen daan not di leen tëj di leen dóor di leen xor ñëw si kenn du ñu may wax. Hmm. bukkut ak xale yii. kon yii ma gis. ñam nañ lu ne. ñam nañ lu ne. am na solo Ibrahima Gueye. léegi ku demee ni président Bougane Gueye ku ma Bougane Gueye sax ku demee ni président Ousmane Sonko. Euh, nga ni président Macky Sall bàyyi na ko daal pa kii ne ko mais lan moo tax kon mu bëgg a dem seeti ay militant bitim réew ñu ko doo buuse met léegi boobu def wax tuuti. Hmm. loolu dama ci def benn euh, émission xam naa émission bi dinañ ko def fan yi hmm. waxtaan ceeg askanu Sénégal waxtaan ceeg euh, kilifa yi diine yi. Hmm. waxtaan ceeg président Macky delloowaat ko la ma ko dénkoon ma dénkaat ko. ne ko nag al fitnatu Mm. naaimatun mm. laana allaha man ayqasaha mm-hmm. fitna mu ngi nelaw yàlla rëbb na ko ko yee mm-hmm. yee fitna gi mu yee fitna nag laa la bëgg a nu mu ko yee nu mu ko yee bisimilah toll ni président Ousmane Sonko am dayo bi mu am dayo mm. du nit ku intègre di nit ku am xam-xam di nit ku jub am ay nit ay millions de personnes millions de millions yu ko topp ànd ak moom ci lu ne mu jaral leen seen bakkan jaral leen jaral leen bañ a lekk jaral leen bañ a naan jaral leen rayante hmm. nga téye passeport am hmm. tuxuloo ko ko hmm. yaa ngi yaa ngi yaar fitna te te nag li ñuy exigé moom ñun nga xam ne nii ñoo ànd ak moom te gëm ne dañ ko war a delloo passeport am ndax gaa yi doole ji du mën a jàll du mën a wéy mooy ñoom dañ woo Adji Sarr woo Ousmane Sonko atte leen su ko defee Ousmane Sonko delloo ci liggéeyam ñu delloo ko passeport am ndax Macky Sall dafa yor eh, Ibrahima Gueye. waaw. maa ngi ñëwaat ci passeport mais est-ce que est-ce que gouvernement bi moo war wo woo Adji Sarr ak Ousmane Sonko wala wala Ousmane moo war a wax ay awakaam ñu dem yëngal dossier bi ñu woolu leen ñu àtte leen mu jeex ku ne xam. déedéet ñoom ñu ko def contrôle judiciaire yor dossier bi. Hmm. muy procureur de muy ki ko hmm. remplacé. Hmm. kooku moo moo war a woo Sonko. moo war a woo Sonko. woo Adji Sarr ñu teg preuve yu leer nañ bu fekkee ne li ñu wax dëgg la ñu condamné Ousmane Sonko kenn du ko xeexal hmm. bu ñu amul ay preuve ñu delloo ko passeport am ak maanaam def coupable Adji Sarr ak wala ñu bokkoon ci complot bu fekkee ne complot la hmm. waaye li li dul mën a nekk mooy mu jël passeport jàmbur téye ko hmm. dégg nga te moom bu bëggee tukki bu bëggee def ay ay ay ay tournée politique am def ay tournée politique bu ko neex mu dem te te moom muy dem mu nekk opposant boo xam ne nit ñi déglu nañ ko loolu du bu ko bu ko tàmbalee dem du mucc fu muy mujj di jur jàmm. fu muy mujj di jur jàmm. ndax jàmm kat jàmm dëgg koy lal. Mm-hmm. te dëgg gii ñu koy woo. Mm-hmm. danañ danañ ci wuy si bu ko neexee. Mm-hmm. danañ ci wuy si ci bu ko naxaree. ndax réew mi du réewum dollante du réewum euh, waajuru kenn. réew mi ay sénégalais ko moom wóolu ko teg ko ci réew mi jox ko ko yaa yor suñu sécurité yaa yor suñu. justice yaa yor suñu euh, euh, santé yaa yor suñu lépp. te la yonent yàlla la yàlla suñu borom waxoon yàlla daawuda hmm. ba mu xamee ne addina bi faw mu am ko jiite waaye ku koy jiite it faw nga tegu ci dëgg hmm. dafa wax yonent yàlla daawuda ne ko yaa daawuda inna ja'alnaaka xalifatan fil ardi hmm. ne ko faxkum bayna naasi bil xaqi bul wala tatabi'il hawa ne ko yow daawuda yaay sama xalifa ci kaw suuf waaye na ngay atti te bul topp sa bànneex fekkee ne ko fari dina ko am sabili bu fekkee ne topp nga sa bànneex suñu borom dina la dina la réeral dugal la ci yoonu yoonu baaxul te Macky Sall ci yoonu baaxul la tegu. yoonu baaxul yoonu yu baaxul hmm. ko jural jàmm bu jural jàmm réew mi. ñu hmm. naan woo Adji Sarr. Hmm. juge baa nga fi dossier baa nga fi Adji ah, leen atte leen. ci yoon wax ñu def ko waaye te passeport jàmbur jëmale ila ajalin loolu ko ko bu ko tàmbalee du mucc. am na solo Ibrahima. mais Ibrahima ah. foofu noonu fi nga naan téye passeport bi euh, Ousmane Sonko da ngay dégg biñ ne Karim Wade ak Khalifa Sall Ousmane Sonko ak Serigne Moustapha Sy maanaam ni ñu waxee woon ñett ñi rek dañ leen daal di jë ñett yi dañ leen daal di effacé bu dee Ousmane Sonko dafa am lenteeg yoon wala dafa am lenteeg nit mu yóbbu ko si yoon bu dee ki nga xamante ni mooy Khalifa Sall dafa am lenteeg yoon bu dee Karim Wade dafa am lenteeg yoon kon mën nañoo jàpp ne ñett ñi duñ bokk si élection yi kon Serigne Moustapha Sy moo say des ñu dem ba yàgg ay ñoom Bougane Gueye ñëpp fekki leen mu daal di def Yewwi Sénégal. Yewwi Yewwi askan wi boobu. Mm-hmm. biñ ne Yewwi askan wi ku demee ni waa àggale foofu bala maa ñëw si Bougane loolu noonu ñett ñooñu nga xam ne mënuñoo bokk te nee na ñoo Yewwi askan wi te ñoom dañ leen a yeew ñoom ñett ñoom yoon da leen a yeew jërëjëf Baye Assane loolu mooy mooy mooy mooy mooy mëneenu Macky Sall comme yaakaar ne war ngaa ñëw am war ngaa ñëw laa réew mi askan wi wóolal teg la ci réew mi mu sàkkal la pexe jaay la doole pexe mm. ba am lu mu la taxal noonu la def Khalifa Sall. Mhm. accusé ko ci caisse d' avance. Mhm. un milliard huit cent millions. Mhm. ne ko da nga war a fay ñu ne ko tëj ko juróomi at. te képp kuñ tëj juróomi at sa casier judiciaire yàqu na mënutoo laaj réew mi mënutoo wote. walaay ndeysaan. fekk defuñu la administré la administré wuñu la. kon nga xam ne kon Khalifa Sall moom mënut a bokk ci ay élection te administré wuñ ko. dëgg la. nag parti nag coalition nag mën nañoo dem laaj ay ay ay ay laaj ay kii waaye moom mënut laaj. mënut a laaj. nga Karim mënut a laaj Karim si aadisam même chose dañ koo condamné te condamnation bi biñ ko laaj dañ ko condamné rek. Hmm. laaj ko amende bu mu war a fay du bu ko fayut. Hmm. moom mënul bokk ci ay élection mënut a wote. Hmm. nga di nga di Sonko. léegi nga moom li ñu li ñu li ñu ko teg mooy dañ ko dañ ko accusé te accusation boobu amul ay preuve te condamné guñ ko atte guñ ko moom cas si am moom verse la def laalaguñ ko. laalaguñ Kassim Siré yàqu dara yàqu. ay point wàññeeku kii wàññeeku si. ay point wàññeeku. Hmm. te ay élection yu man mën naa déposé te naa woote. kam Sonko so Ousmane mi. waaw Ousmane Sonko mii. mën naa bokk ci élection yi. mën naa bokk ci élection yi mën naa woote. Hmm. lenn nag la ñuy exigé ñu am. Hmm. ci kaw njëkk ak teraanga. te laaj gi koy laaj it koy laaj. pacifiquement. Ah, hmm. bu déggut bu déggut su fekkee dafa tax ne déglu laaj ñu ko laaj. Hmm. na jàpp ne insha allahu taala du yàgg dara askan wi dinañ jëflanteeg moom dinañ ja dinañ jëflanteeg moom jëflante goo xam moom que moom jéem naa laaj. wala man man a hmm. moo tax Ousmane Sonko laaju leen nangam ak nangam te xam ne ne weer wi ren weer wi déwén danañ woo Adji Sarr woo ko. Hmm. atte ko. ma ba duñ bàyyi ba élection yi ñëw ñu def projet. mënut ta nekk waaw même bu ñu defee projet tam dañ koy atte rek. Hmm. mais même même bu ñu defut projet day man a dem moom. même bu ñu moom dana mën a dem continuer ab ay activité am ndax ko defaguñ ko am na solo. li nga xamante ni loolu la ñuy tëjee euh, Bougane Gueye Dany mu ni daal euh, ñii nga xamante ni ñooy yeewi askan wi ñoo ñu dajaloon foofu maanaam ay dëmm lañ si gàttal. waaw Bougane dañoo bëgg a yeewi yeewi askan wi yooyu dañoo bëgg a lekk askan wi dong moo tax. ma ñëw ci Bougane. Hmm. Bougane li ko boole ko boole ci coalition na ñoom ay ko li ko boole ci politique laa lay wax. mais mani. bàyyi ma wax la Bougane Gueye Dany. nee na bàyyi na ndax ñooñu ay dëngu lañu. may yeggale tuuti dama ne. Hmm. Bougane Gueye Dany li ko boole ci politique laa la bëgg a wax mooy lan. bisimilah. dañ la ci ginnaaw li boole ñu Youssou Ndour ci politique. Hmm. moo boole Bougane Gueye ci politique. maanaam mooy. Youssou Ndour dafa laajab télé ba Abdoulaye Wade jox ko licence télé mu am télé. Hmm. mu daal di créer fekkee ma ci boole. fekkee ma ci boole googu Moussa Souga yow nag la doon xeexe Ablaye Wade. Hmm. ba tey la mu doon xeexe Ablaye Wade ba tey Macky Sall ngeen di ko piir te xeexut Macky Sall. Hmm. Bougane Gueye Dany mii li ko dug li dugaloon fekkee ko ci boole moo ko boole moo ci boole Bougane Gueye mais bokk Bougane Gueye bokkut ci bokkut ci bokkut ci langue hmm. bi. bokkut ko boole ci politique tere bi am moo ko boole amul yenn ambition politique bu ko waxee Sénégal yëpp la ko man maa ko waxee Ibrahima Gueye da Ibrahima Gueye Bougane Gueye Dany amul ambition politique bi mu mosul laaj mairie Ndar te la dëkk. Mm. fi mu toll nii am na di laaj Ndar. Mm. du ko def. li mu wax noonu yow da si siy d' accord ñii nii dañuy yeewee askan wi dañoo bëgg a lekk askan wi donc. xam nga loolu loolu dañu dañu naan euh, nit ku nekk. Mm. am nga droit taxaw wax loola neex ndax réewum démocratie lañ nekk. waaye dañuy yeew askan wi dañuy yeew askan wi askan wi doxuñu askan wi xam na ku leen di yeew ak ku leen di yeewi xam na ku leen di complot ak ku leen di teg ay deal pour ànd ak Macky Sall suñ ne boo laajoon tey sénégalais yi quatre pour cent yi boo leen laajee ñu ne leen Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko euh, kii lay liggéeyal Macky Sall lay liggéeyal ndax leen na da am lu koy firndeel dañoo jug si trente et un décembre hmm. Macky Sall def euh, maanaam général def daal ne Bougane Gueye Dany war ngaa fay deux milliards xaw ma un milliard ak poussière. Hmm. boo ko fayul boo ko fayul vingt quatre dañuy tëj sa télé bi. Hmm. tëj nañ télé bi. Hmm. déedéet. tëj nañ ko wala tëj wala tëj wala wala tëjuñu ko. de. ndax dama fay. ah. ah. ah de fayut fi ko Macky Sall képp ko duggal ruube ruube opposant bi wala dafa xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy seqal. ay Sénégalais la ko seqal mais seq ko ay Ousmane Sonko ak Khalifa Sall. am na solo Ibrahima ay sénégalais ay sénégalais ay sénégalais yu yeewu yu xam lu xew la la bugaan gi daal di féqal. Hmm. langu politique gi. am na solo Sénégal gi Sénégal gi kenn dootu leen complot kenn. kenn dootu leen complot. di kàddu Ibrahima Gueye di doomu Touba bokk si parti bi nga xamante ni mooy parti bu Pastef te bi ñu ne Ousmane Sonko. Macky Sall daal bu jàmm na delloo Ousmane Sonko passeport am. jeex na. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Ibrahima Gueye jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne ñu bàyyi xel ku mel ni Bougane Gueye Dany kon dégg ngeen kàddoom yi nee na lii nga xamante ni moo euh, yeewi askan wi moom génn na ca ndax man naa jàpp ne ay dëmm lañu dañuy sóob rek seen bopp dong leen fa tax a nekk te mboolem ku sa bokk na nga jàpp ne ñetti parti yi la taxawu ndakaaru mu sëñ bu mu sëñ Moustapha Sy bi ak Bougane Gueye Dany ñeneen ñi si des ñëpp bokkuñu si kon mi ngi noonu ba suba incha allahu rabbi jërë ngeen jëf cant ak ngërëm na leen mbokk yaa ngi bàyyee xel seen bu am solo lu jëm ci wàllu information lépp loo xam ne dafa jëm ci alerte wala lu ñu war a dénoncer ci réew mi lu jàdduwul fii ngeen koy amee ci chaîne GCB soo bëggee am bépp vidéo bu fi jaar fii ci GCB bësal cloche notification bi moo lay man di may nga am bépp vidéo buy jaar fii ci GCB mi taxaw ci alerte ak dénoncer ak génn fi mboolem loo xam ne ayib la wala ñaawteef ci réew mi